jël tafatin. Balla Gaye tafatin Assane bëgg mais looloo fi dàq. looloo fi dàq yoonu làmb ku ne xam na ko. bu neex tafatin Balla Gaye làmb la joo xam ne àddinaa ko soxla day image boo xam ne amoon na mais mu ñëwaat soxla bu neex mais am na ñoo xam ne buur bu ñu yàq làmb ji li ñuy wax amateur yi xam nañ ne loolu mënul ne comprendre nga. boo ñaa boo ñaa Balla Gaye su fekkee ne dafa daan. fekkee ne Balla mu booy ñaa dafa daan la dëgër kooku day am facilement comprendre nga man sama gis-gis bu Balla Gaye bu fekkee ne Boy Niang daan la dëgër Boy Niang la dëgër day taxaw rapidement Ama Baldé Modou Lô pour mu taxaw buur non du yomb. parce que du yomb wax jee ci bëri làmb ni muy taxawee ni mu daan taxawee day jékki-jékki taxaw nga dox camp bi mu sutti dox camp bi ba mu sutti nga jox leen xaalis jox leen contrat ñu siñe ñu ne làmb ji dina taxaw suba fekk taxaw na bu yàgg mais da ngay gis yow di waxaale ji kàmbale wax ko loo xam ne lay leer na mënu ko nga dem ma kambale du taxaw pour ñu naan diw diw diw diw loolu amul njariñ nan dox combat ci suuf taxawal ko ci suuf ba pare jox ko presse bi ñu yëkkati ko